liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax na def suñu assemblée générale ci dëkk bi ñu xam ne maam yi kenn sa si sañcu dëkk bi sëñ Bamba moo ko sañc te kenn ku nekk ci ñun am nga dëkkub maam da koo gàddaay dikk fii parce que yéen liggéeyal ba jeexal ci sa dund li lay wax ci grand place yi dara lu wér amu ci tey nag am na benn baaraam bu ñuy wax baaraamu déy ak baaraamu sànni Cheikh Abdou Lahad Mbacké wax na ma ne ma dëgg ak fen ñaari baaraam yi ñoo leen ñoo leen mooy seen frontière da ngay fab sa baaraamu déy teg ko ci sa nopp fab sa baaraamu sànni te ko sa bët te xam ne lu àdduna yàgg-yàgg aw fen da koy dégg te xam ne lu àdduna yàgg-yàgg dëgg da nga kiy teg sa bët koo xam ne kii am nga compétence bu tarxiya bisa ngi nii daaraa ngi nii gaañaa ngi nii wër ma lii mooy is bu tarxiya loo ci nattable dana la wóor tey suñ la nee is bu tarxiya sëñ Saliou génn na leen Touba ku ne xam na ne téesante weesu nañ ko ndax ab soldat boo xam ne du wàcc guddi du wàcc bëccëg du téesante waaye yéen nit ñi ngir ñu bañ a tayal ci liggéey sëñ Tuubaa daan ko def suñu nit la ñuy waxal kenn du dajale mbooloo te waxoo leen lu jëm ci sëriñ bi mënut a nekk lu wér lañ leen di wax ku fi dikk tey soo fi nampaalee loo xam ne lii yow te la jur jur yow na nga xam ne ku lay gàllankoor ngir nga mañ ak si fii loolu dong la ci jublu fii dañuy yete bopp la ñuy xar tey dugal ci lu leer nañ doo doo gis lu dul sëñ Bamba looloo fi am kon balaa may tàmbali dugg ci wax woowu sax di ci soli nan dikk ci kenn ku nekk ci noonu xasida gi nga mokkal wala xasida gi nga taawu ci sa loxo walla boo mokkalut taawu woo xasida ñu maase nun ñépp teewlu fu waay toog du jar muy wëlbatiku fépp penku la ci sëñ Touba lépp ngi jublu ci jumaay ji fii fépp jàkk la pepp suuf wu ne kër la ci Touba gii nan teewlu nu jàng xasida te wax ak sëñ Tuubaa ne ko ndam lii mu am ci tubaab bi te nun nuy maanaam mandarga yi barab bii nu toog tey kenn ku ne xasida gi ngay jàng leen jublu mooy luy niroog luy métti wala luy niroog luy gàllankooru wéradig yaram ak lu lu mu doon lu ne na tàggoog sëñ Saliou Mbacke ba faw ndax ak nekkam fi baax na ci nun ak nekkam fi baax na ci nun wóor nañu ne duñu hypothéqué mukk ci àdduna bu doon banque ñu wóor na duñu fa hypothéqué ngir njariñal boppam kon nan ko ñaanal mu yàgg fii ndaw wér nu yàgg fekk moom te nun xam ngeen ne duñ dellu gannaaw sëñ Bamba rek la ñu gëm te lu taxaw ci suñu kanam suñu diggante ak sëñ seen ndodd mi la doon gëmuñu luy dem aras di ñëw xamuñu loolu sëñ Bamba sëñ Tuubaa def na ci lu kenn dul def gëmuñu borom wilaaya gu rëy li ñu xam sëñ Bamba def na ci lu ko gën suñu wilaaya suñu xam-xam ak suñu kàttan ak suñu man-man lépp tënk nañ ko ci benn baat muy liggéeyal Seexul Xadim ku bëgg yóbbu suñu fit wan ñu ko ci liggéeyal sëñ Touba soo dawee jiitu ñaari mètre am nga liggéey bu ñu amatee jàmm dañoo làng maa ñu romb la koo mën a doon te bu ñu la rawee yàqu nga dootoo dabe jeexal nga kon na ñëpp def noonu kenn ku ne xasida gi mu téye wala li mu mokkal wala su mokkalul te téyewul xasida nay wax rek teewlu sëñ Touba di ñaan sëriñ bi ànd fekk ñun di liggéey jiitu ni borom fukki at ak ñeent nuy dem ba faw fa nu yont yàlla nooyin wa de na leen wóor ne yàlla jog ko joxoon mi ngi fi jógu fi te nun ñii nax nu xiyaalu wal xiyaalu ashdaru bi an yu xasasa bi xay yan duru sunu borom buy nangul kenn gën nu ci ndax ay ñoñom lañ ndax sëñ Tuubaa lañ yaakaar kon nan tàmbali liggéey boobu

wala ñaar yooyu jekkuwoo ko nga mën a ñaan yàlla sunu borom ci barkeb sëñ tubaa ak darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Saliou Mbàkke wér te yàgg fi seere leen ni fii tey ñoo ko jaayante te ci pénc lañ ko wax nanu ñaan ñoo ngi ñaan yàlla mu suturaal nu sagal nu ba benn yoon benn gàllankoor bu xeetoog yii buñ ko déggati ci suñu sëriñ bi yaakaar naa dina dinañu ko defal ndax waxoon naa ko fii nax nu xiyaalu wal xiyaalu ajdaru bi an yu xasasa bi xayri yanduru kon nu dugg ci waxtaan wi li nga xam ne moom laa tàmbalee woon di ko wax mooy ñun ñii dafa am lu boole te bu fekkoon danoo bokk nun ñëpp nekk ci benn barab dëkk tuubaa sunu waxtaan mën naa bañ a jëm ci nii may bëgg waxee su fekkoon danoo bokk nekk Dakar sunu waxtaan mën naa bañ a jëm ci nii may waxee waaye yàlla dafa dogal am ñu nekk ci mbooloo mi nekk fii fi tuubaa am ñu bokk ci mbooloo mi nekk ca sow am ñu nekk ci mbooloo mi nekk ci gox yi ci réew mi yépp di Kolda di Tamba di Kébémer di fu mu fi mën a doon ci biir réew mi ah mu am ñoo xam nag nit ña ba ci bitim réew mu mel ne léeg-léeg téesante moom ku ne xam na ne ku way du ko def weesu nañ ko it liggéeyub sëñ Tuubaa it mayuñu ko waaye dafa am loo xam ni su da su mu dabee ñett dab nanu tëx nanu lu nanu gumba nanu maanaam kon bépp kaddu wala bépp tuuma boo xam ne yëkkati na ko di ko sànn ci suñu der na ko wóor ni kat tontuwuñ ko benn ñaareel bayit na ko wóor ni kat waaxuwunu ba ci kenn ñu di ko ko boole kon na ñi ñi wax ñëpp na seen xel dal ci ne weesale nañ sëñ yu Mbàkke fu ñuy dema fa moom naa ko déngal li di wax wala déngal li ni wax ci ñun kooku tekkam ji luy dox fii ba arasa course yu xam na ko xam na koo xam ne kii da ngaa takk ba faw te dootoo te te te dootoo defaru xam na koo xam ne yaa ngi ci njabootu sëñ Tuubaa ca ësal ba bisub tey bi kon kooku yegg fi moom di ko leeral lu mu war a xam muy tukkee ci ñun jomb na ko waaye nag nun tey bu ndaje ci suñu biir nag war na noo waxtaan nag dëgg dëgg lu xattal nit ñi bokk ñenn ñi ba nga xam ni dafa mel ni li ñu def téyetuñ ko ba àgg ci di wax ni sëriñ Saaliwu sax de yeewu na étudiant